allo salam alaikum la vidéo sénégalais j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde s'est bien réveillé euh, facile yéene euh, commenter actualité Sénégal Nous euh, commencé tamit ci ki nga xam parce que président Ousmane Sonko dafa mais waxul turu mais tout de suite après verdict bi qui qui se sent morveux se mouche encore man sama ndaje parce que dafa dafa dafa plus c'est le plus grand opportuniste sans euh, personnalité du Sénégal Khalifa maa leen nuyu bu baax baax afi yéen ñëpp maa leen di ziar euh, gaynde yéen ziar bi Assane Diouf ne cëpp Sénégal fekk mu ngi yëngal Aras di am ay milliers de vues boobu fekk na toq daan loon seetaan Barthélémy Dias laay maa leen nuyu bu baax a baax ak maître El Hadj Diouf ñom ñoo jëli ji woon Assane Diouf ci aéroport ba mais El Hadj Diouf wor na Barthélémy parce que c'est des opportunistes et ils ont toujours travaillé pour Macky Sall hmm. personnalité il n'a pas de personnalité Pour mon personnalité du deux ci kër bayam jusqu'à l'âge de 47 ans, tu n'as pas de personnalité. Américains, yep, à l'âge de 18 ans, ils sont majeurs, ils vivent chez eux. Toi, tu vis chez papa et maman. Tu mets toujours des couches. Tu n'as pas de personnalité. Mm -hmm. mën nga le président de la République du Sénégal tu as des couches génnee say couche ba pareil. boo génnee sa kër bàyyi ba mën a demal savoir. quand tu sauras marcher toute seule sans papa et maman tu pourras prétendre être même président de la République du Sénégal mais pour l'instant tu mets des couches monsieur deuxièmement tu n'as jamais gagné quelque chose au Sénégal tey nag lay yëngal Aras pas gagné tu cuuni dara d'Oul, day maire Mermoz Tu as gagné mhm. da nga génn prison buñ la tête de liste Khalifiste, taxaw dakar leen ndax dañ tête de liste yow nga ñew ci ginnaw yow viens me démentir tu n'as pas gagné Mermoz Mermoz sax mëno ko gagné ko gagné devant tous les Sénégalais quand je le disais avant personne ne m'écoutait maintenant wax la parce que nga Dakar gagné Mermoz gagné tu n'as jamais gagné Mermoz Wolen wa waa Mermoz ngeen ne leen ba ñu voté kan mo gagné kan mo nékon tête de liste Sowan Wardini mo nékon tête de liste c'était pas toi parce que da nga leen yow buñ la tegee ci karam do len gagné parce que yow dañ la ték ray katou nit Bañu gagné ba paré. ba so ba ba ba taxaw ndakaaru gagné temps bobu élu ñom ñoy fal maire Barth jaar ci ginnaaw neexal élu yi ñu fal ko moom ay élu ñoo ko fal mais du waa Mermoz ñoo ko fal. Mhm. bas da nga bëgg ma tegal la ay audio portugais yi nekk Mermoz les gens de Mermoz m'envoient des audios hein. j'ai tellement d'audios de gens qui sont à Mermoz yoo xam te ne mu ngi sama biir portable tey bu ma ko tegoon tey di nga xam ne portugaaña yi portugais yi teguñu la portugais. man xamna naa lan moo tax Macky Sall récupéré leen yéen ñëpp je sais pourquoi il vous a récupéré ay nervi yi bu leen faté né mois de mars nervi yi nekkoon bi Dakar siège u PS lañu ñu fa lañu résider won Aminata Mbeng Ndiaye mom Barth moko wax ils ont des nervi yi Macky Sall armeem rek ak nervem doyut pour maintenir tay population bi si c'est l'eau dafa am ay nervi yi dafa am ma ñëwaat encore ca Mame Mbaye Niang xarit benn bakkanu Barthélemy Diaz la Mame Mbaye Niang c'est l'ami le meilleur ami de Barthélemy Diaz ma ñëwaat encore ca Kirikou Kirikou am na doom bu mu tuddee Barthélemy Diaz Kirikou Mbow Mbow amna na mi mbaw ci kër Kiriko mooy cucu Kiriko boobu noonu bu ndaw boobu non eumbal na ben xalé bu tuddu tudd Barthélemy Mbow ca Kiriko ñom ñep ñu bokkoon ci benno bokku bakkar da ngeen ñibi seen kër fa ngeen bokkon da ngeen ñibi seen kër sauf yow Barth tu n'es pas le maire de Taxawu tu es le maire de Yewwi taxaw amul maire mairie de Dakar huit moo ko tu essaies de faire des gros caca yoo xamante ne ci sa taat kon boo xamulee la fal ñun la wax la fal maire bi nga toog chaise ba nga toog Yewwi la tudd tuddul kon la chaise assemblée nationale ba nga fay doxot doxot yu pata bo fa doxote bala ngay wat doxot day yag yewi lu tut parce que hier je t'ai entendu parler wii ñun ba ñuy gañe dakar bi yon dak gañe wolé dakar nak ding yewé nga dakar taxaw dakar tojul fenn la preuve en est que ba ngeen bouxé won Idrissa sek ngeen def la grande coalition bobu da ngeen joxé won sen xaliss que da cotiser won parce que affaire bi nak la ngeen di duul yeen ñaar ba ngeen yàggee di duul du tey xalifa génn ne waa man baat moo ma nax Barth génn ne waa man xalifa moo ma jox ndigal koo leen yàpp est-ce que xalifa sa jabar guddi xalifa da lay jox ndigal est-ce que xalifa buy tëdd ak jabaram guddi est-ce que Barth da jox ndigal déedéet léegi toi baat nee nga ñëw nga tàggoo na wax nga président Ousmane Sonko tu l'as informé J'ai entendu. J'ai informé à Khalifa et à euh, euh, euh et à Sonko, parce que Ousmane Sonko, parce que c'est ton copain, mais un jour tu l'appelleras président par la force. Un jour, tu vas l'appeler président par la force. Un jour, battre les médias, parce que yo, tu, tu pisses plus haut que ton cul. Ça m'a donné nous Yo, cette histoire, tu as fait que Jean-Paul Diaz l'a commencé. C'est sa grand-mère l'a commencé da nga histoire fi mu débuté fa nga commencé bo khalaté fa mu commencé di sa informé président Ousmane Sonko oui tu l'as informé mais non ñi nit ne ki man dé wax damay dem gisi euh, euh, Macky Sall te mu xamné am nga est-ce qu'il va te dire non ne parle pas il va pas te le dire hein?

dede dañu amone ay beut am ay xel ngeen dem and ak Idrissa sek man je me suis retrouvé toute seule man mi ngeen di dem di fenal ci Sonko di fenal un peu partout ne mam dafa bokone PDS buma bokone PDS amna ngor bu day niki damay taxaw devant tous les Sénégalais man leen dama bokone PDS wala sen nijaay moma nen ndayu kenn nenuma ma boo PDS boo sañoon am sama benn photo ci réunion PDS may ñu PDS la bokk plusieurs fois pour ma ànd ak yéen ànd ak pour Idrissa Seck ma ne man sama sama niw sax buñ ko jëloon rombale ko fa massifier Idrissa Seck billaahi dinaa vie durant toute votre vie Pour ànd ak un jour viendra dinaa leen ne bés buma ma leen waxee lan motax lay wad sama carte du ma sa dem ci lay wad ce jour là su ma wax sen ronga ñu na tour waxtu wax ko jotagul mais bés bu joté dina ko wax te bu boobaa yuuxu dina jóge fa mu fekk feetewu doo leen ay nitu dara vous n'êtes tous vous n'êtes rien But, sol lunette bu fashion du tax nga fashion parce que tu es con avec un grand C bakkaar lu tax nga doon nit parce que tu es bête t'as même pas d'idée yaa fi taxaw nga ne yow boo nekkee maire de Dakar Dakar yëpp ngay def wifi est-ce que Paris yëpp tout Paris à la wifi premier duul bu pata bi nga duul waa Dakar yëpp yëpp yëpp mooy nga taxaw di def campagne électorale naan oui euh, moi quand je serai maire parce que fii yëpp ay doon fii yëpp ay doon wifi lol moo nekk premier duul bu pata bi nga duul boo xam te xaju sa gémmiñ li Macron mënta def France li bàyyi de def États-Unis yow ya taxaw yow ko ci sénégalais nga ne yow les la Dakar ngay def wifi wifi partout nga wifi partout rien du tout maintenant je t'ai entendu dire hein, oui on va pas déguerpir parce que déguerpir c'est pas une solution yow da nga amul solution les Dias tous man mi mam bama commencé di lebalé frigo loolu nga jël idée génné ay frigo di lebal mère ak ah, ay jakarta fa la sa xel toll tu n'as pas d'idée tu es coincé so amon xam-xam américain yi duñ la sandi dakaru nel demal wuti ci liggéey ñom ñoo lay tu n'as pas de savoir légui da nga né da ngay diranté mbagg ak président Ousmane Sonko mëno diranté mbagg ak mom parce que limu jang jangoko Yo ya Ousmane Sonko c'est un homme politique et toi tu es un politicien tu as confirmé que lui il est là pour faire euh, la vraie politique et que yo, tu es là pour manipuler le peuple c'est toi qui l'as dit du inventé tu as reconnu que tu es un homme politique tu es un politicien tu es un manipulateur ça baille, mosul am dara Amdara, Sénégal sa bàyyi dafa mujjee nekk mbindaan ci pale bi yow di nga mujjee nekk mbindaan ci pale bi Sonko day doon day bokk par la force yi ngeen mu neex leen mu naqari leen day bokk mhm. te yow doo mës a doon tous rien naada nada nee naa leen fen day jël ascenseur ah dëgg di daago yow baat yow mi di fay maire yi nek ci bi di francs par mois avec l'argent du contribuable yow Mbart bi nga xamantene yeen vous les socialistes les milliers et les milliers d'emplois fictifs que vous avez fait dans la mairie Lolo, tax Khalifa ne ñii duñu dem assemblée parce que buñu demone assemblée yëngal aras xam nga yow politique dañ la ko da nga toog nii rek sa papa ne la nii ak nii ngay répété la sa papa wax ñun dañ toog école dañ ko jàng moom on a appris la géopolitique jàng la politique sur jàng sociologie sur table foofu de dem toog ak tubaab bi di jaay ay homme politique tubaab di leen jàng di communiquer vendre seulement c'est communiquer nit client bu ñëw taxaw sa kanam da xool kanamam ni mu mel nga xool li mu méngool nga jaay ko ko. loolu rek c'est communiquer loolu rek c'est faire de la politique Il faut plus de chance daanal la bëccuku ndar kàmma di ngeen par la force au fait Macky a fait le nettoyage Pour mhm. mon équipe, nii xam lu des jëli ci suñu président Ousmane Sonko ba leen li teg ko fii xaar le moment opportun dugal ko ci palais bi rek a le choix est direct xam en 2019 c'est que vous êtes bête parce que 2019 méthode bi ngeen utilisé en 2019 vous avez tellement été vous êtes tellement pressé dañu pressé pressé pressé pressé pressé ba nga xamante ah, ils ont accéléré on accélère on accélère moo tout de suite ñoom ñëpp ñu transhumé 9 mois à l'avance parce que pour ñoom togg nañ ko ba mu ñor 8 rek a des dara ñorogu fi bañ fi le choix est direct ñaari camp boko am Benno Bokk Bakaar yow ya leen ko tuddé won Benno Bokk attention Benno Bokk Bakaar du mam moko ko Batti limi jazz mo tuddé Benno Bokk bakar, wa APR kon nit ki bu démé ba tuddé feulé Benno Bokk bakar, xol boppam xol jëfinam ba ne mom jëfinam dafa mengo Benno Bokk bakar, mu ñibbi anda ak Benno Bokk bakar. kon yéen et quand on dit Berno Boko Bakar, ça veut dire mentir. Vous êtes des bandes de menteurs. yow kat nga yow nga Khalifa rappeur la def vidéo 50 000 francs la médias di garde yoy ñu 50 000 francs mhm. Yen vous, a jël wa socialiste vous, il a 800 000 chargés de mission en maire de Dakar. Mais par contre, pour il est indigné. Tu as fait un Matin, midi, soir, 50 000 francs à de par mois. Yen yen ko def yen khalifisti. Mm -hmm. Légi yon nga khalifa, sal, day don président, il faut mou le président. Légi yon, bat, kou mounou te jabar. jabar ku mënul fidèle ci jabar ku mënul gérer ben femme kessé comment tu veux qu'il gère des millions de femmes dans une dans un pays c'est impossible c'est impossible da fam luñuy jang ci biir kër ba pare do koy développer ailleurs maam nee na ku mënul tëye ben jabar ah pendant plus de trente ans ngeen da ngay gérer dëkk nu mu koy gérer mënul gérer coco xalifa dafa tooy yow sax baat da nga yambar yambar nga dangay am am lu fit mais amoo fit amoo fit sans nervi tu n'es rien du tout amoo fit doo tuus ma xool nag sa changement man dama xool sa changement physique ak ni nga commencé di ànd ak ñoom ànd dalgoo di mindaanu mindaanu tubaab bi. Y'a fi indi focus arrêtez de me dire focus Bat moi mon focus nous c'est le don de soi pour la patrie bàyyi leen nit ki ñëw ne leen focus dem na nu yóbbaale ndayu focusam Bat dem na nu yóbbaale yu focusam ngeen la don de soi pour la patrie binduko ko Barth ñu xam ne ñii yeewu nañu ndax gëmul gàtt sama page mosuma ci focus Donc yow ya créé focus yow bat ya ko créé parce que tu penses que tu es plus malin que les gens foog nga ne commencé nga xaritoog en Anne Hidalgo commencé nga dugg ci réseaux socialistes? rek pour yow tubaab yey fal rek falu nga doo falu dégg nga et tu ne seras rien du tout. Tu sa cousine bi doon faux profil de ma saaga nekk na le Hollande la xooma

ana Justin Correa bu yore une finance passif. il lui a donné un poste il avait donné un poste à Guy Marissagna. mais Guy Marissagna c'est un gars très intègre et très intelligent bi mu comprendre jeu Barth bi biñ ko député Il fallait démissionner maire de Dakar ne ko am parce que mon boulot Barth parce que Bart dalay xoj un petit boulot pour que tu sois son esclave motax mané big respect Guy Marius Sagna léegi mom dafa commencé won def ay congrégation catholique man mom catholique yépp yëpp man ma ci gëna a ndawal parce que je suis catholique mais je ne suis pas sectaire parce que de nek catholique taxul nga kon nekul catholique bu catholique bu ñew taxaw ne la catholique là. parce que mon bart il est catholique quand il l'arrange quand il a envie de prendre la religion de son grand-père il dit qu'il est musulman motax tax mu nan dañuy julli pour wane ne pour récupérer waat musulmans yi dans leur cœur et montrer que lui aussi il aime les musulmans il n'aime personne c'est tout pour ça rien pour les autres dam len ngeen deglu kii yam bi mu wa ñun jullit ñi parce que ñun catholique yi dañuy julli da ngay tu veux séduire les musulmans séduire les par le par tes actes non pas par tes paroles dee décédé ñu jox suñu mère bi wa APR. Euh, Bart du jox mère bi APR hmm du ko jox APR li ci dess bari tour mom néna Macky Sall c'est son frère légui frère la koy woowee frère c'est mon frère légui néna Sonko c'est son ami. tracé nga ñoom ñaan ñëpp nga bokkal daal yow bo ñëpp nga bokkal loolu mooy naafik naafik day bëgg a doon xaritu ñëpp àndandoo ñëpp demandoo ñëpp naafik du jël mukk position non day àndandoo ñëpp di dem ak ñoom ñëpp ànd. nee naa leen xeex bi na sauvage dagan man kenn du ma teg ci benn alignement pour dem yàqale ma Macky Sall ci famille bi maa ci gën a sauvage man je vadrouille partout. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir tout le temps. Vous avez le droit de donner votre opinion. Qu'il le prend ou pas, vous n'en avez rien à foutre. Mais vous avez Comme À force qu'il prend des décisions et que ça ne va pas, un jour, il prendra en considération les idées que vous lui donnez. kay tàcc ne ko li ngeen wax noonu la li nga wax noonu la ñun foo jaar ñu jaar fa foo jaar ñu jaar fa boo daanoo ñu daanu ñun ñëpp ñooy daanoo ndox il a besoin de nous comme nous on a besoin de lui yàlla daf ko may xel may ñu xel on a le droit de donner notre opinion boolu Macky Sall Macky rek ay décidé. moo tax saful dara ce qui doit faire la le charme de cette politique et qui va les faire peur mooy bu ñu àndee di jëlante suñu idée par ci par là di jël di teg di jël di teg et qu'on accepte aussi ñu daanandoo ñun ñëpp man c'est pas parce que Sonko ànd naag baat que dama ko bàyyi déedéet j'ai donné mon opinion mais c'est la majorité qui l'emporte. Et on assume ensemble. Et on se relève ensemble. Et on gagnera ensemble. que la ak positionnement fixe première règle numéro 1. j'ai ma carte d'électeur yenn ñi am une carte d'électeur vous n'avez pas le droit de perdre votre carte d'électeur Vous ko le garder sanctionné on va lancer une pétition pour montrer à l'opinion internationale et nationale qui pour une carte d'électeur lay pétition est lancée c'est pour toutes les personnes qui ont une carte d'électeur au Sénégal ont le droit de signer pétition avoir le maximum de personnes pour mon aîné. 90% des Sénégalais sont avec le président Ousmane Sonko Ben, dañ leen di d'anal par la force parce que nous, am doole bu leen on va lancer la pétition la plus le plus rapidement possible cette pétition comment est-ce que vous avez bañ Comment signé ce que vous avez signé personne n'est obligé de le signer mais pétition bobu noonu tay dina def sondage pour woné né ñaata nit ñoo am carte d'électeur pour voter président Ousmane Sonko au Sénégal pour woné né il n'a moom munta ñak ci élection yi parce que mëno privé ko xam te 90% des Sénégalais moom lañu andal. àndal nga ne danga koy privé ne du dem élection mënul né. xel la àndal xam nga Macky Sall dafa dem mu ne moom da dafa wax waa parteem yépp nañu signé pour wax ne ñoom ils sont d'accord pour que lui il soit candidat deux millions de signatures la am moom la teg ci kaw table bi ñun nañu teg quatre millions de signatures pourquoi pas mën nañ ko képp ku am carte d'électeur ak képp ku inscrire ci liste électorale bi waroon na war naa signé pétition bi

fu mu yem neex nit ki boo ko ëppalee benn affaire da koy won fa nga ko ëppalee soxlu ngay yox yox yi naan nii ak nii non da nga koy won fa nga ko ëppalee yéen du lit ci yéen seen parti mun ñu génnee cent mille euro teg ko ci kaw table bi mun ne dix mille francs munoon koy génnee ci kaw table bi yéen tojoo leen fenn tojoo leen fenn léegi nag comme tojoo leen fenn dañ leen di won lañ leen mënee wu fet niki man nit mo la ëppalee doole fo mo la ëppalee doole fa la la kay woné duma la ko won fenen fenen fenen feneen fi ngeen ko ëppee doole moy ci ay nit lañ leen ëppee doole nañ leen wan ci ay nit lañ leen ëppee doole léegi nak wax bobu nonu parce que ñun dañ am problème ñun dañ am problème parce que boo gisé baat di wax ni il y a des gens qui sont au sein de nous qui sont des bouffons du pouvoir dañ leen fal maire au lieu ñu wàcc seen poste coordinateur yi pour coordination yi comment continuer dund déedéet les coordinations ne vivent certaines coordinations ne vivent pas pourquoi parce que ki nekk fële dafa bëgg a jël chaise am taatam yi di dëj ko ci ñaari chaise léegi président Ousmane Sonko man maa lay lancer alerte bi ne la ne ñun suñu coordination yi dañoo bëgg ñu dund te pour ñu dund il faut que ñi nga xam dañu nek maire nek député dëj sen tati ci ñaari chaise mënu ñu doxal coordination ni mu waré il faut que ñu waccé sen tati ci benn chaise pour que xalé yi mën continuer doxal. et qu'on lance la pétition la plus rapide le plus rapidement possible. ji nga li ngeen naan Macky Sall du bokk troisième mandat on n'en a rien à foutre foutre qu'il participe ou qu'il ne participe pas. On n'en a rien à foutre. Parce que nous, ils sont partis comploter contre le président Ousmane Sonko. tant qu'on réfléchit sur la candidature de Macky Sall, Nous, en train nous nous, nous, peut-être candidature Macky Sall nous, comme nous, nous nous, ñun nous leen nous, ay nit Nous, nous pétition comme ça ñëpp signer pétition bi le maximum possible hein pour que sénégalais yi ñu xam ñaata nit il faudra une pétition bo xamante ne yéen xale yi ci biir koñ yi ngeen dem cœur gu nekk sa tante sa nijaay képp comme carte d'électeur nga ne ko kay signer pétition bi Sonko mon président 2024 Sonko ou rien d'autre part ko ci bopam ak siège Pastef yi ci bopam il faut qu'il commence à mettre des gens de confiance pour que nous recueillions tamit pétition dans tous les sièges de Pastef partout ay nit lañ la ëppalee nit moy falé ku ëppale ay nit moy don président de la République du Sénégal du maki moy tan kat moy jité ñun ñooy tan ku ñu wara jité électoral bi 7 millions d'inscrits donc si les 4 millions sont ont leur pièce d'identité bok ci biir passef kon président Ousmane Sonko président de la République du Sénégal dama bëgg ñu yegg 2024 ku nekk xam mom moy kan parce que ba on ku nekk xamagul kan moy kan yow bat yeen leen France mëno leen ko ñun buñ leen ne ñoo nekk ay figurant vous n'êtes tous rien nada mhm. tojoo leen fenn papa mun na bokk papa mun na bokk ci benn bokk bàkkaar bokk ci ñun man ci li tubaab di wax rek tel père tel fils man ci définition boobu laa jël ne baat tax baayam benn la tel père tel fils loolu tubaab moo ko wax nit ba mu doon Sonko mënul ne Jean Paul Diaz mooy baayam tel père tel fils kii ay góor lañu jaam foo dem fekk ko fa jullit ya am na ca catholique ya nit ku bon am na fu nekk moo tax nit ku bon kenn waru koo ko étiqueter religion ci jikko la ci yar la di violente naan ñu bon ñi ñëpp ay jullit lañu ñu baax ñi ñëpp ay catholique lañu ñun suñu bopp ñu bon ñi dañuy jaxase parce que camp bu nekk am na nit ku bon kër gu nekk am na nit ku bon Sall mënul dundal ñëpp yéen bat Barthélémy Dias di fay 50000 francs dans la mairie de Dakar je pèse bien mes mots chaque weer ngeen dem tàllal bu jox leen cinquante francs Mamadou Diop maire de Dakar man dama wara wax parce que bat nee nga yéen maire de Dakar mosul jóge sen sen famille yéen socialiste yi dinaa la né pour mu bañ a jóge bir famille Khalifa Sall dafa dem tak ji doomu Mamadou Diop maire de Dakar mhm. da ko dem tak enchanté ko pour affaire bi deureum bi baña a ci gaal bi lolo tax maire de Dakar mosul génn ci yeen parce que yeen pour yeen sen ndono nday la sen seen bay hmm mais ban social ngeen dem Dakar a part sac Abdou Diouf fa muy jóge Sénégal da tali amu fo won yéen socialiste yéen fi njëkk indi président boo xam te ne muy Léopold Sédar Senghor château ba mu yore woon ak jabaram mu war a bokk ñun suñu patrimoine ñun noir ñun sénégalais ndax moo nekk suñu premier président du Sénégal bu dem may ko mairie de Calvados lu tax château bi may ko woon taalibe yi pour que ku dem visiter xool xaalis bi dem ci taalibe yi déedéet mairie de Calvados la ko may yenn socialiste mais vous n'avez rien fait au Sénégal à part nous mettre dans la merde pas possible y a njëkk premier président du Sénégal deuxième président du Sénégal faut une dire retraite da ngeen dem toog France jël fa sen retraite di fay sen impôt mhm. Mary, Mary, Mary mairie maire moom moom moo doon defar sa tool ba nek ak employé Mary, bi ñom ñoy dem di entretenir sa tool sa tool sa propre champ ton champ le champ pour xam te lo ci gagner yow sa poche la jëm yow employé mairie yi ñooy dem di defar sa tool yow c'est pas du détournement de deniers publics et des affaires publiques si sa baay pas ça bo xama yow lan motax mëno xass macci parce que sacc nga bo xasse macci mu neela rap tecc ci kasso bi te yow da nga bolé ñaar sacc ak rey nit mhm. dañ la sutural sa bay bo gisé mu dem tok fofu ci palais bi di ndunguru macci sal, parce que yaa rey ba boo àndatulee macci sal rek ñu neela rap tecc la ci kasso bi macci ku mu jël ba xot la rek amna fum la japp benn nit rek la Macky Sall xojut vous allez me dire c'est qui c'est Amadou Ba moo tax mu jox ko ñeenti ministère xam nga xaj sàcc xam na kër gu am xaj Macky Sall ñépp la xoj ku ñëw mu xoj la ku ñëw mu xoj la mais xaw ma nag fan la ko Amadou Ba xojee ba mu jox ko ñeenti ministère mais ku ñëw mu xoj la ku ñëw mu xoj la mu ñëw xoj la ba mu yegg ba ci Amadou Ba la ne Amadou Ba mii moom ma koy rendi di dee naa ko jox ñeenti ministère mhm. APR ba mu daj dem leen ngeen xool ni APR bindoo ña fa ñëw yëpp Macky Sall da leen xoj sa baay sax Macky Sall da koo xoj Khalifa Sall Macky da koo xoj ci fii ak ci fii

man nit yi ñoo dem abonné sa page mais yow yaa ñëw abone sama page parce que xam man li ma teg ci kaw table bi dama ci am ay preuves maire yu ma sa sàcc Sénégal yépp ba ci yow tam leen ubbil page les maires qui ont détourné l'argent du contribuable du Sénégal yaa ngi ca page ba yow Barthélémy Dias yow si sa jàq la góor jigéen yi doon tëddee ñaari góor jigéen yooyu ñuy gett ñuy tëdd noonu ñuy tëdd pour te dire yow naka la la yàlla vomir Sénégal ba mu daj yow rek yaa fa créé yaa tabax jàpp joo xamante ne góor jigéen ñi dañoo dem ñu bett fa ñaari góor jigéen ñuy def seeni affaire yow Barthélémy Dias mais tëjoo jàkk jooju noonu def kenn def ko Sénégal yow rek te un jour viendra dinaa wax sénégalais yi lan moo tax nga def foofu parce que nag Bart euh, jàkk joo xam dañ koo tabax ba pare ñoo fekk fa ay góor jigéen ah soriwul maçon de maçon xam nga ni ñuy wax maçon yi wu ko de maçon rek la autoriser ay ñuy ay affaire ci yow c'est pas de la diffamation dañoo fekkee gis yàlla may ñu xel bu analyser ay France les nekk ay boy portugais yi fi def prison lañuy lay fayal ay ñu exécuté après ñu moo mané la andal il faut ñu ci xel bu baax baax ak dal mhm. xel ak dal nañu Sonko mo bëgg taal dëkk bi parce que Sonko ba léegi parce que nit dañuy génn ci bi di mais ba ci table bi militant ñaata nit ñoo ci am carte d'électeur mooy ñu mel ni maam les militants utiles on va faire une association de militants utiles mooy ñam carte d'électeur buñ ko commencé def aras day yëngatu parce que ñoom maguy lañu foog mooy fale fàtte ne population bay dem ci urne bi koñ par koñ dem leen xool seen koñ yi ngeen dëkk yëpp kan moo am carte d'électeur kan moo ànd ak Sonko même si dul manifester par kan Sonko kan calculer ci est-ce que sur 100 personnes ñaata nit ñoo ciy voter Macky Sall ak ñaata nit ñoo voter Sonko signer pétition yi na pétition yi par par def d'une manière rigoureuse précis ce dernier balle il yoré tirer donc droit parce qu'on n'a pas droit de les rater te rater nombre de population yi fi carte d'électeur di voter au niveau de la France képp ko am carte d'électeur di voter Sonko nama contacter ñu def pétition maintenant Privé ne va pas priver de président de la République les 90% de l'électorat sénégalais. Mounou ne. Nous n'avons pas le droit d'interdire les wa APR, nous sommes sen président. Nous non lañ Nous, droit Nous ñun Sonko moy suñu président. Sonko rayul nit. C'est Diaz mo ray nit nous jox ko de Dakar. Ray nit est une

bi ngeen di yónnee ba léegi man dama topp seen tànk pas à pas benn par benn ba ngeen yónnee nday ndaat mu ñëw commencé daan ne fesam laa ñëw taxaw ne leen moytul man nday ndaat boobu xaw ma woon sax bàyyi nday ndaat moo nekkoon garde corps Abdou Diouf da ngeen yàgg di doxal nag da ngeen yàgg di doxal maam buy wax non maam day wax maam daa iñaan maam daa def lii maam daa def la li maam iñaanul de gisul lu fi lu fi ñor bañ koy macc iñaan ni pas maam parce que maam dafa doylu yéen yéen a doyluwul moo tax ngeen iñaan yéen politiciens yi yéen a doyluwul moo tax ngeen iñaan bu ñuy nee soxor bu ñuy nee iñaan ci politicien la fekk baax yéen a gën a yées mais nee leen baat moom ñoom taxawu ndakaaru moomuñu ndakaaru yeew yi moom moom ndakaaru ñom buñu mënon mënoon jël ndakaaru du ñu ñëw langaamu ci yeewi pour am dakar parce que nga dakar yéen ko massa mom momo len leen bi yoon momo len dakar la preuve en est que bo len joggé ci coalition bi lan moo ngeen di langaamu ci coalition bi parce que bo len fay joggé di ñak sen maire parce que maire Dakar yeewi askan bi moo ko moom mais démissionnaire yeewi Dakar yé yeewi askan bi nga xool ndaxam yeewi ndaxam maire de Dakar dañ fa continuer nekk lan moo tax ngeen ngeen langaamu doo leen mës a quitter parce que boo leen di quitter di perdre seen député Barthélémy Dias buy quitter yeewi askan bi dootul doonati député parce que député yeewi la du député Taxawu Dakar da nga fàttali la fal dañ la koy fàttaliku ba mu dugg sa biir maayin bi parce que instant bi le gars il se la pète mais trop haut wa, ñun ñoo sommes mom Dakar, nous ñun la mais nous tax des leen seen da ngeen de seen pantalon ba xamné fess na da ngeen de demal seen mais ba ngeen nous ba de da ngeen de top ci ñu sarax leen jox leen de Dakar donc vous n'êtes pas le maire de de de taxaw Dakar, taxaw amul Barthélémy Dias, n'est pas le maire, de, euh, le député de Taxawu tu es le maire, le député de Yewi, Askan Wi étiquette Yewi, moi la fal kon nga bëgg ko nga son ko Sonko fal tu n'as même pas besoin de le dire tu l'as l'étiquette sur toi sa marque Sonko le, mu neex le mu naqari la sa marque Yewi Askan le mu neex le mu naqari la Yewi Askan bi saay boo xëyee la matin tuddee sa bopp taxaw ndakaaru mais booy dem di toog ca chaise ba newal tegal ci sa xel ke ne chaise ba nga toog yeewi la tudd tuddul taxaw ndakaaru kon bu ñëwee toog comme ci les gens ne savent pas ce que c'est que la politique qu'on ne sait pas ce pour dire que ni ñoom ñoo moom ndakaaru moom moo leen coocoo dégg léegi sa newoon naa leen Sowaan ci Moustapha Niass la bokk ñoom ñëpp ci Benno Bokk Bakaar bi bañ jàppee Khalifa Sall Sowaan lañu jox maire bi ndax Sowaan ci Benno Bokk la bokk dañuy paasante bal bi entre ñoom Benno Bokk les moo ñu newoon leen biir Askan bi Benno Bokk dafa ñëw infiltrer leen sauf que dans une coalition quand tu quittes la coalition que perds ton député ca APR dafa perte député am noonu dematul assemblée mais battre Barthélémy Dias ubbil sa gat bi nga ne bokkatuma yeewee askan bi da ngay perte mairie de Dakar perte perte député bi danga koy perte par la force parce que yeewee askan bi moo la fal moo la fal Sonko moo la fal mu neex la mu naqari la moo la fal ñi nekk ci internet bi di saaga yow saagaa la fal yow baat saaga moo la fal dañoo dajale suñu saaga ba mu mët wasaare ko ci internet bi moo nekk sa carte d'entrée mairie de Dakar saaga moo la fal dajale waat suñu saaga ba mu mët yóbbu la assemblée nationale tay la la saaga yi métti dañuy saga c'est pas n'importe qui la ñuy saaga de traître yi la saga saaga mhm. traître yi la ñuy saaga ils n'ont pas insulté n'importe qui hein. fekk ñu nit rek ñëw jékki-jékki rek ne non politicien bi dañ koy saga amna ñu fi nekk def politique te kenn saagawu leen li nga def bu ko ko defoon ñu saga ko mais daf ko defut juróom-ñaari filam daju ko ndax xam na fu mu jógee xam na lu muy bañal boppam nit ñi ñenn ñi ñenn ñi ñenn noonu lañ leen di woowee warul de nee na warkat la sañu ñu sax war juróom-ñaari xelam dajul ñu ñuy war parce que baat bu nee génn na ci yeewi askan bi mooy ñàkk na li mu am yépp amul juróom nga day am am lu fit Men nou tous, nou tyon tyon. Bat nou gat, tu de riyen, et tu ne zera riyen ditou. Pas nan yon am lou fit, an wap an lan nou kame, nan yon am fit. Nan yon gen nou nan yewi askan bi, le gisa men nan lip, bay nan lip, dedet. Politis chiyo lalende wawen, mwen do moun chen politiki. a jàng politique mais moo xolagoo defuñu l'école du parti h HEI HEP la ñu génnee waxuma la école du parti dégg école du parti ñoom Farba ñoo fay ñu mel Farba la ñuy yow niveau Farba Ngom nga tu es Farba en plus raffiné Bat mooy Farba en plus raffiné parce que comportement Farba la dama foogoon ne tu étais plus intelligent que ça mais je me rends compte que ne yow tu es farbongom en plus raffiné léegi comme tu es farbongom en plus raffiné on va te parler maintenant comme à la farbongom. Ngom. Mhm. mooy Barthélémy Dias bu nga maam nee na laaj duel bu nga am nga kuy am nga jom te ne nga yow taxaw nga mën nga demal sa bop. da ngay génnee étiquette yeer bi bi ne nekkatuma député yeewi nekkatuma meeru Yewwi parce que boo nekkatulee député Yewwi nekkatoo meeru <laughs> Yewwi Abass Fall mooy jël p yow doo doon tus ndax ñun ñoo jël deuxième loolu mooy wax bi amal fit maam nee na nit day am jom comme nga da ngay alu amal jom man neena amal jom man bu doon man damay gedd damay démissioner man nan bokkatuma léegi démissioner na mairie de Dakar bu ko defé nak abbas Fall jël sa place maire bi ñun ñu mom ko ñun passef mais geddal bàkk geddal nit nga gor nga jom nga mun ngeen déma sen bop bu goto am bu goto bu ne nga yew yeewi yeen mun ngeen déma sen bop yeen taxaw ndakaaru yeen mat ngeen yeen def ngeen lepp mais yow amal jom bu day niki démissionner le maire de Dakar comme ça Abbas moom mi jël deuxième mu jël pays mhm. Sénégal jëm kanam mën na de té borom bëtt bu reuy bi nak mën na ko rek lu ko raw di nga borom bëtt bu reuy bi ak mo mën lu ko reuy <laughs> ki war fi ba zuba bu la jégué ba xamné nga wara nga baat ne ma benn boo feebaree Pastef lay remplacer dégg bo déwé deewee mo lay remplacer maître de Dakar borom bëtt bu reuy bi yaa xool 17 millions sénégalais ba mu neex leen nga ne ñëpp nga ah, que que yow tu te et que bu tu sais insulter man je vais pas t'insulter mais je te mets les choses devant tes yeux. borom bët bu rëy bii maam nee na soo deewee mooy jël. yàlla Pastef mooy jël mënoo ci gàtt mënoo ci coco. xam nga loolu bu rëy bii fale di folliwaate bës bu nee tong tong sa buntu kër di nga xam lan moo la fal dégg nga maa ngi leen di nuyu di leen sant dafa mel ni yaa asuma bëgg na dugg de xaama dugal ko. xaama dugal yaa asu ba pare dem sama bu neex a neex préparer nak sama pétition man sama xex ngi do commencer duma dem di ànd ak yéen ngeen may empoisonné ndax ay reykatu nit ngeen man ak yeen sekkatuma lenn nekkatuma figurant wu benn parti politique dedet dégg naa xalif non au troisième mandat man maam benn ci ndayam benn ci baayam xalifa kañ bu bëggee wax non au troisième mandat comme xaritu Macky Sall la soxlaatu ñun ci mbedd bi na ko lijjanteex Macky Sall directement Barthélémy Dias sax xaw na nee na ñoom la mu dem foofu di lijjante ci Macky Sall non au troisième mandat da ci bokk mais lijjante leen non au troisième mandat loolu c'est même plus notre problème ñun notre problème aujourd'hui mooy président Ousmane Sonko day bokk par la force man daaw Macky Sall loo lijjantewul leen ko Macky Sall yéen ñi dem di lijjante moom yéen ñi nga xam te da ngeen dem pour doon Macky Sall négocier place bi comme yéen da ngeen dem pour négocier place Macky Sall bi bëggatuñ la maintenant il faut que tu quittes yaa asu xam naa dafa jàpp léegi dañ lay arranger ah léegi nga jox ñu sa place yéen loolu ngeen dem lijjante ji voilà léegi nag comme yéen a ngi lijjante euh, non au troisième mandat wu Macky Sall ñun Sonko dans le palais ou rien C'est comme moi, je yóbbu Sonko ci palais bi je vais faire man vais faire sama ak nee naa tout le temps maman elle fait comme elle le sent qui même me suit man en ce qui me concerne man maam c'est. dinaa def pétition bi mon président en 2024 Sonko le ou rien du tout même si les gens qui sont avec lui ne m'aiment pas je m'en fous je m'aime dinaa signer pétition bi man am ma carte d'électeur et je sais que Sonko on ben une voix bo xam ne mën na ci compter muy man maintenant yéen ñi may sétan tamit faites comme moi signez la pétition pour que Sonko tamit xamné ne mën na compter ci seen voix ku am carte d'électeur la wax ku amul bul signer tu as ta carte d'électeur tu signes tu n'as pas de carte d'électeur tu signes pas maintenant la pétition on l'enverra

ñun noonu la ñu amee droit tànn suñu président de la république du Sénégal xanaa neex yàlla dafa Macky Sall dafa nekk le dieu le dieu du de la terre boobu nag moom nag moom moom Sall ngaari lam tooro yeggagoo foofu sa pouvoir yeggagul foofu dégg nga xam nga sa pouvoir fu mu yegg tu es corps marraine d'accord bu la neexee nga takk ñaar ñett ñeent juróomi jabar boo leen nee toog leen ñu toog boo leen nee jóg leen ñu jóg loolu on est d'accord

je t'assure dama ko euh, am na ku naan mes condoléances je sais même pas ce qui se passe bon xëy peut-être dafa am ku dëj le yàlla ñun ñun yàlla bu kenn génn ci ñun yàlla na ñëpp gudd fan ñëpp képp ku nar a nar a voté Sonko yàlla na am wër tan képp ku nar a voté Sonko ah mu tibb ko ci xolam bu set wicc mu set bañ def lu bon képp ku nar a voté Sonko na bàyyi njaaloo balaa muy dee balaa deux mille vingt quatre képp ku nar a voté Sonko fu mi Dias jaar bul fa jaar sobe dafa bon dafa sorekat nit la ku nar a voté Sonko ah na léemu chaque jour chaque jour chaque jour ku nar a voté Sonko ko yàlla may gudd fan tan dara bu mu ko jot ci àdduna mais ku war Sonko <laughs> nee na naa la topp <laughs> am na ku mais ku nar a war Sonko yàlla na ko yàlla toroxal

parce que ñenn ñi dañ naan Sonko boko lalé mais légui Sonko c'est le Sénégal ku war Sénégalais yi koy gis bëccëgu ndar kam kam kam kam kam kam amu sa ngi léema la parce que da nan naan nan Sonko mu sel mi da nga naan Sénégalais yi sel ni Sénégalais yi sel ni Sénégalais yi nga xam ils sont sains d'esprit hein nga xam te ne on a le droit de rêver de réussir on a le droit d'aimer notre pays, on a le droit d'avoir des ambitions. Sénégalais yooyu noonu ku wor da koy gis Gaston mo nga hôpital un Lo bi doon président Ousmane Sonko fu mu jóge ci feebar Mbaye bi président Ousmane Sonko ñi wor sénégalais yépp laa wax de parce que ku saaga Sonko saaga nga sénégalais saaga nga seen intelligence ana ñi wor sénégalais yépp boobu ba léegi ñu ngi ci lalu hôpital on est à l'air du verso. dégg ngeen boo leen yëgulee ne ne nit ki bu doon def lu bon sax naka naka corriger mu doon lu baax par la force mooy baax par la force wala dee air bi ñu nekk nii baax par la force wala dee moo leen di dal